d'abord ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di leen sant ci wuy bi ngeen ñu wuy ci demb bi président de la république defee discours à la nation sénégalais yëpp dégg ko mesure yu am solo yo xam jël nako euh ben mesure bi tax ma ñew moy état d'urgence ndax état d'urgence da fay lo ne li buñu ko jëlé euh liberté yi ñu doon am pour di dem ak dikk dootuñu ko am te lool nak nam du tay la fi massa am waye peut-être ñu bari jotuñu won ko dund comme ni nga ko war a dundee tey na tax ñu léral ko euh te expliquer ko nit ñi euh donc tay bu 8h xasse jot ci ngone ak fan yi di ñew 8h ba 6h dañuy téré nit ñi di dem di génn donc kenn ku ci nek dañ lay wax nga tok sa kër lolu liko waral japp na né ministre de la santé expliquer nako ko bu du benn du ñaar fièvre bi likoy joxé ni koy vecteur yi koy yóbbu nit ñi dem ak dikk loolu disposition bi ñu jël donc sur l'ensemble du territoire 8 heures ci ngone ba 6 heures ci suba kenn ku nek ñi ngi lay inviter nga nek sa kër bu loolu weeso it xam nañ ne transport demlante ak dikkalante également bokk na ci liy yóbbu euh, virus bi quelque part bokk na ci li koy toxal mu jógee ci benn bërëb dem ci beneen transport également interurbain comme ni ngeen ko xamee mooy jógee ci garage yi diggante diggante dëkk ak dëkk transport yooyu tere nañ ko c'est valable pour transport en commun c'est également valable pour ñu yore seen oto bopp là aussi bëgg naa mu ñëpp xam ko donc tey jógee ci dëkk ak dëkk à partir d'aujourd'hui danañ ko tere ba ci kanam pour que ñëpp ñu mën a toog ñu éviter déplacement yi pour ñu mën a ensemble xeex virus bi nga xam ne mi ngi bëgg mi ngi bëgg sonal naturellement nag euh, lu mel nonu boko ko dara am ño xamné ne peut-être euh du ñak ñu mën ci am euh disposition bu leen mëna jëlal pour ñu mëna a liggéey mais en attendant may ñëw ci loolu am na question yu ma journaliste yi posé bu ngeen seetloo daawu faral di defee nii conférence de presse li ko waral mooy ndaje mi ñuy bañ muy am moom la ñuy bañal également euh, ci lu mel nii ñëpp ñëw daje fi cinquante journalistes ak seeni euh, matériel seeni reporter ñi leen di jàppale kenn ku nekk di bëgg a question wala di buuxante moo tax ñu jël format bii nga koy jëlit waxoon nañ leen ne laata ñuy ñëw kenn ku nekk bën nga poser question jox ko numéro bu mu koy poser ñun ñëpp euh, ma chargé de communication dajale question yi bu ma ñëwee mu wax ma ko comme ça ñu tontu ci am nañ yaakaar ne ñi mu ci sélectionné du ñàkk mënut a jël yëpp ñi mu ci sélectionné peut-être bu ñu ko dégloo dana mën a leeral parce que leeral dong moo tax ñu ñëw benn bi am na ko ko ci posé euh, question mooy Samba Ardoba journaliste Dakar Actu euh, wax na ci yan mesure la entreprise yi jël Euh, loolu bu ñu yegsee ci dérogation yi peut-être entreprise yi mën nañ xool ndax danañ am éligibilité waye liñ leen di ñaan moy autant que faire se peut manam tant que mënu nañ jéem adapter adopté seen liggéey ci contrainte yooyu manam fexe ba ñi leen di liggéeyal duñ génn 6 h ba 20 h sénégalais yi ban risque lañu am pour ku respecté wul euh état d'urgence dafa am loi bo xam bi mi ngi ci réew mi depuis 1969 loi bi changé wul disposition loi bi lañuy respecter ku respecté wul état d'urgence Amlo ben dérogation bu justifié nga wara a génn mën nañ la tej digënté ñaari wër ba ñaari at man nañ la amande digënté ñent junni ba téeméeri junni waye ben ci amande yi rek lañ lay mëna jël duñ la ci booleel ñaari donc lool moy li nga xamné li mom la loi bi def ci article 21. transport bi nga xamné bi bii dafay nek digënté dëkk ak dëkk mom sax interrégional la wax mais man dana gëna préciser sax du yegg sax région bi manam digënté euh, communauté urbaine ak Bénin. dañ koy donc fi mu le te uniquement transport en commun le concerné même si on a boo amul ben justificatif ben dérogation pour le permettre le nga de ci de bi dem ci et ceci à partir d'aujourd'hui à 20h. donc loolu yaakaar naa ne leer na Je poser ku poser une question Gallo poser euh, question d'abord Khalifa Ndiaye wax euh, euh, mais il y a une question bi ci man la bi ji des ci ministre des transports ñaata gendarme ak alkaati li ma ko que wax rek pour ñu respecter euh, état d'urgence bi gendarmes sont en ciy avec ak policiers et les militaires donc def nañu réunion avec ak pour ba kenn ku nekk mi dispositions pour que à partir de maintenant nous les leen sur le terrain pour que nous respections a respecter disposition boobu euh, beneen bi question bi Gallo Daouda Sall moo wax na ci jullig aljuma gi ndax dana am ci yeneen région yi euh bon fofu aussi li ma ciy wax rek mooy bi ñu tàmbali médecin yi taxaw wax ne nañ moytu ndaje yi te kenn ku ne xam na ne julli aussi ay ndaje la euh, defuñ ko pour jéem a tere julli wala pour leneen nañ moytu ndaje yi ak fu muntu doon ci sport ci plage yi sport ci terrain yi donc muy disposition yu jël waaye gannaaw religion dafa sensible dañoo jàppoon ci suñu démarche ne duñ ci def lenn lu ñu waxtaanut ak kilifa diine yi man ci sama jëm bopp am na fu ma dem am na ñu ma wax ak ñoom ñëpp ba ñu mànkoo ci kenn ku ne xamoon na ne mois de mars bi amoon na ay événement yu am solo événement religieux parce que ci la ci la euh, nu mu amoon ci la euh, daaka bi am euh, ci la Kazu Rajab am également ci la appel de am muy événement yu am solo tasaaroo ci dëkk bi kenn ku ne xam ne taalibe yi dañuy jógee fu ne ñu waxtaan ak ñoom ba ñom ñëpp ñu nangul ñuko né malgré que defoon nañ ko sen agenda ñom comprendre nañ donc donc démarche boobu lañ jël également pour prière yi waxul né dañuy tejj euh jumaa yépp ci Sénégal dañ leen invité né leen li buñ ko défé li moy conséquence parce que bu ngeen sétlo feebar bi ni muy yokko déga mëna joggé ci ben ndaje rek dal di tasaaroo ni muy yokko ci aduna bi dafa xaw doy waar dafa yéeme kon démarche boobu lañ jëlone aljuma bi passé bi ñu jëlee waxtaan ak imam yi waxtaan ak euh, euh, yenn kilifa yi diine wax deug yalla euh, ñun japp na ne aljuma bi réussite la parce que pour la première fois nga jël une opération boo xam ne bii soxlawul sax nit ñi di déplacer juste par téléphone sur ñent junni ak juróomi témèr yi juma ñent junni ak lu topp julliwuñu woon bés ba donc daanaka buñ jëlé témèr bu nek ci juma juróom-ñett fuk ak juróom ñent respecté nañ disposition bi démarche bobu la ñuy utiliser waat fii ak aljuma te am nañ yaakaar ne ñëpp dinañ ci adhéré parce que ñëpp gis nañu njariñ bi parce que de plus en plus chaque jour bu ministre la santé génnee wax ne nangam yokk na nit ñi di jël conscience que affaire bi soriwu te loolu am na solo bu njëkk biñ koy tàmbali peut-être ñaari région la woon ñett léegi yaakaar naa ne ñu ngi ci juróom benn région donc loolu am na solo nit ñi comprendre ko yaakaar naa ne dañ comprendre donc aljuma bii di ñëw aussi am nañ yaakaar ne nit ñi danañ mën a comprendre pour que Euh, ñun ñëpp ñu mën a aar ñun liñ ci dugal du dara lu may aar Sénégalais yi te gëm naa yaakaar ne kilifa yi diine yi wala peut-être imaam yi nga xam ne ñoo jiite nit ñi amuñ ci benn objectif ñoom it lu mooy aar ñi nga xam ne ñooy seen taalibe wala ñoo ànd ak ñoom. Euh, ci wàllu également euh, déro dérogation am na ñu laaj yan service ñooy am dérogation moo wax ne arrêté bi nga xam ne bii man maa koy jël. jël naa ko ba pare sax d'ailleurs bi président signé décret état d'urgence dañu ne ci biir réew mi ci gox bu ne bés bu yàlla sàkk de 20h à 6h, maytu nit ñi ñuy circuler ci gox bu ne waaye ñu teg ci ne diggante ñaari gox yi également Mom duñ sax permettre ci bés bi nit ñi di circuler donc kenn ku nekk nekkal fa nga nekk mën ngaa dox ci biir de 6 h du matin ba 20 heures bu weesuloo permettre luñ ne arrêté bi am na ñoo xam ci président institution yi institution yi Sénégal xam ngeen leen président les ministres ak secrétaires d'État les députés ambassadeurs gouverneurs, préfets, sous-préfet magistrats et greffiers personnel de santé euh, personnel de défense et de sécurité personnel de santé donc nous, nous, arrêté beaucoup de bokkuñ ci euh, arrêté aussi permettre na ministre de l'intérieur gouverneur préfet bu soxla Manam pour wàllu liggéey pour faire une wala urgence nous euh, permettre la souplesse nous avons ñu la bouger ci soit ci biir dëkk bi wala nga génn sa dëkk dem dem beneen dëkk donc loolu moo doon euh, solo si euh, ndaje bi man ma war ci intervenir xanaa ma bàyyi suma suma naataangool euh, ministre des transport mu ñëw complété par rapport ak question yu ñu ko posé jërë ngeen def